RTV Dakar yéen ñi abonné gul abonné leen gaaw bu leen faté beus notification bi ndax moy tax ngeen di jot sunuy vidéo jaa ngeen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 rubrique qasida de la semaine ah tey nag ñu fas ci ànd ak sunu mam Cheikh Ahmed Tijani al Maktoum radiyallahu anhu di qasida bu nga xamanteni mu ci way waajuram bu tedd ba waaye di serignam sëriñ Babacar si radiyallahu anhu ah mom Cheikh tijani al Maktoum radiyallahu anhu yàlla daf ko tagatalon khalimam ba taxna neena bind naa ci seen maam Babacar si radiallahu anhu lu toll ni téeméeri xasida te ñun bu ñu xoolee ko ci wax ci ñun dalay wax sëriñ Babacar si kon nekk bu fekkente ni xale yi judd ci gannaaw sëriñ Babacar si te koo ci gis rek mu ne la mooy maamam kon war na noo xam sunu maam jooju mooy kan ba tax na ki ñu ko mën a xamal mooy sëriñ Cheikh Ahmed Tijani Al Maktoum wax naa la léegi nii yàlla daf ko tàggatal xalimam wax na ko ci xasidam te suñ mbokk Oustaz Ibrahim ñu mës ko dégg ci moom mu wax ni rumxul xawaafi laa na indi matnuhu laa ashtaki laxnan bi silki nidaami nee na dafa mel ni daal xeeju woy yàlla daf ma ko tàggatal ba su ma tegee sama xalima du ma jàmbat benn laxnu waaye du ma jàmbat benn baxru damay teg rek di bind ba tax na suñu maam jooju moo ñu bëgg xamale ak sëriñ Babacar Sy radiyallahu anhu ah xasida bi nag ñu fas yéene ci ànd ak ak waa firqatu jilul jadid bu Dakar ànd ci ak ki nga xamante ni mooy Baye Abdou Cissé xasida bi nekk yaa man yusaarixu ñu bëri gën koo xam ci maalil xalifati maalil xalifati misalun fi tasarrufi wa fi tasarrufi من يصارح للشكوى لعلاتي دعني أذكرك آيات بآيات نحن جسنا لا نغي خاتو رك دي جنبت نخ جوفيل جوفيل تيكن تي بابا كرخسي رضي الله عنه نحن كن دعني دقلو مرك سوما دقلو أذكرك آيات بآيات ما لا خمال لا أي كمتان يونغ خمنتيني mi ngi tegu ci ay kéemtaan ci Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu mi ngi lay bëgg waxal kéemtaan yoyu زمان كنا وكان الناس في نعم من الصوابغ في ظل العنايات ndeysaan mu ni jamonoy sëriñ Babacar Si nee na danoo nekkoon ci xéewal gu mate fii ni amin te loolu xéewal gi yemul dong ci ñun de nee na wa kaana naasu nit ñëpp danoo nekkoon ci xéewal ndax mayu sëriñ Babacar Si nee na jamono jooju soo bayee mu nangu waaye boo commercé yàlla def ci barke loo yëngu rek yàlla def ci barke ndax sëriñ Babacar Si radiallahu anhu nee na kenn mina sawaabiri fi zillil inaayaati nee na sëriñ Babacar si jamono jooju préparé woon na may yi ak xéwal gi mu mel ni ku ko préparé ci ay mbalka ba nga xamante ni may yi su ñëwee fa lañ koy fekk nag di ko jël زمان كنا وكان العلم يطلبنا رفقا وكان الهدى في كل قاعاتي لنا جمانو سرين بابا كارسي موي جمانو جيغا خامتيني كنا وكان العلم يطلبنا لنا خام خام تي بوبم مو دون ورسي خام خام مو دون ورسي كو سرين بابا كارسي جانغال بابا خام خام مو لاي ورسي نينا ورسي بوغا خامتيني رفقا ورسي بو يوم بلول سي te nee na wa kaana alhuda fi kulli qaati booba njub dafa matale ci bërëb yëpp jamono Serigne Babacar Sy nee na njub dafa matale ci bërëb yëpp mës naa dégg benn mag mu ne jamono jooju nit daan na ragal a def lu ñaaw cay su ma defee nangam bu ko Serigne Babacar Sy déggee kon loolu mayam la moom Serigne Babacar Sy radiallahu anhu zamana kunna maam Cheikh ay wax ne wa kaana al fawzu yalifuna nee na jamonoy Sëriñ Babacar Si nee na ndam daf ñoo miin nee na gañe ci boppam daf ñoo miin dégg naa Oustaz xalifa mbay yàlla ko yàlla yokk wér mu wax ne góor gi Moussa Ndiaye Diagne mës naa romb maam Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum nee na maam Cheikh ko nee na ma ngay dawal fasu kursu nee na mu ni mam Cheikh dama bëgg nga ñaanal ma maam Cheikh nee ma ñaanal ko ci barke Serigne Babacar Sy mu dem am ndam nee na mu jox ma ci xaalis bi maam Cheikh nee na ma dem marché xotti ci grand boubou jënd ci ay marakis jënd ci parfum bi nga xam ci moom la Serigne Babacar Sy di gëttoo dem jox ko nee na maam Babacar ni ko waaw Cheikh foo jëlee lii mu ne ko góor gi Moussa Ndiaye Diagne moo doon dem course ji nee naa ko ñaanal ma ñaanal ko ci sa barke moo tax kon gis nga mbokk yi nitu yàlla ku ko won gannaaw sa dara du dox waaye ku ko dëgmal rek lépp loo ñaan si barkeem yàlla may la ko moo tax mu ni kon kun kunna wa kaana al fawdu yalifuna wal amnu yashmuluna fi kulli xaalaati nee na ni nga xamante ni noonu la ñu ndam miine gañe ni mu ñu miine noonee la ñu sécurité enveloppé nee na kóolute moonu yiir maam Cheikh nee na du ñu tooñ de waaye ragal ñu dara nee na kóolute googu nag fi kulli xaalaatin ci mbooleem axwaal yi jamono ju nekk du tey ngay am sécurité ëllëg nga ñàkk ko déedéet bés bu nekk daal yaa ngi gañe waaye bés bu nekk yaa ngi ci kóolute kon tey war na noo xam dëgg-dëgg ku donn secret yooyu ah ñu dem ci moom TV Dakar yéen ñi abonné gul abonné leen gaaw bu leen fàtte bés cloche notification bi ndax moy tax ngeen di jot sunuy vidéo jaa ngeen jëf.